communiqué comme ni nga ko waxee bu jógee ci euh, ministère bi di xam na ni daanaka guleet ñu def lu ni mel fu ñu ci àgg sori na ak yu ni mel mais bor la man sénégalais bi xamul dara ci koom économie xam lu ma koy jàppee lebati nañu léegi kañ la ñuy fay benn parce que nee nañu ba am na eurobond bu ñu yëkkati woon euh, fukki at a ngi nii ci ginnaaw. boo xamee ñu ngi continuer di ko fay te lii ñu yëkkati nii bokk na ci lañu ñu war a génne ci xaalis bi ñu yëkkati pour fay ci bor bi ñu amoon xam nga sénégalais lambda bi nga xamee ni mbirum njëgum soble beeg ceeb beeg diwlin beeg jëndum xar beeg yooyu moom moo ko soxal boo ko nee eurobon réeral nga ko économistes yi ña ngi cay waxtaan ci seen biir ña ngi ciy joxe ku ci nekk sa xalaat j'ai vu une sortie de Birahim Seck la muy laaj mooy ki ñu dénk courtier ba ñu ko dénk pour mu dem wutal ñu xaalis JP Morgan boobu lu tax ñu jox ko ko ak ñaata lañ ko fay moom courtier bi ci xaalis boobu nga xamee ni dañ ko wax pour mu wutal ñu ko am ñeneen ñu yëkkati kàddu na ni mbir mi waratul a nekk ngay dem di wuti ay eurobon mais ñun ñi ci biir Afrique te ñun ñu taxaw na ni mbirum panafricanisme la ñu bëgg a yël teg ko ci kanam war nañu mën a xool lu ñuy weccante ci suñu biir ba lu jëm ci wàllu investissement parce que eurobond yooyu xaalis bi pour lan la pour mën ko investir ci ay infrastructure ci ay mbir yoo xamee ni yow jàpp nga ni mën naa développer sa réew ña koy joxe gis nga kalee lebal euh, ba pare di ci laaj sept et quelques pour cent sept virgule euh, poussière pour cent ci boo may fay loolu mooy taux d'intérêt bi la nga ci war a la ci war a teg maanaam cent milliards booy fay dinga nga fay presque 800 milliards wala cent milliards te fay bi du du nguur gi fi nekk kay fay de peut-être sax nguur gi di ñëw après du moom moo koy fay dañuy continuer di ko fay te pendant entre temps dañuy lebbi feneen ndax dañ dem ca FMI club de Paris dañ fay dem leb boobu ñuy dem di leb yi yëpp. il faut que nga leeral ko Sénégalais yi ñu xam ne leb bi ngay leb pour mu jëm ci loo xamee ni dina la jural loo xamee ni di nga ci mën a am leneen loo xamee ni di nga mën a fay bor boobu leb nañu fii pour tabax ay infrastructure tey mbirum ay terre mbirum BRT mbirum yeneen ak yeneen mais dañu jël xaalis am na loo xam ne dañ ko àbb pour mën a ñoŋal suñuy infrastructure mën ko gaawal ngay tam di tabax stade bi ñu jóge nii stade Léopold euh, Diamniadio Euh, maître Abdoulaye Wade mais am na ñoo woo ne leen kaay lebal leen ma rapidement mu mën a tabax dina am xaalis boo xam ne dina jóge ñun ci suñu gaf pour yokk ci waaye dañuy jël benn investisseur ñu ne turc yi ñoo gañe marché bi ñeneen ak ñeneen ñëw di dugal seen seen seen loxo ci suñu liggéey mais ndax lan xaalis ba nga xamee ni ñoom pourcentage bañ ciy jot moom moo leen ciy intéressé Afrique moo war a bàyyi leb neew ma ni réew du leb pour taxawal mais dina am lépp benn taux boo xamee ni boo ko lebee da ngay sonal da ngay sonal sa bopp yow en tant que état da ngay sonal sa askan parce que di nga dem ba benn moment lan mooy indiwoon ñu ne la euh, li ñuy woowee ay subvention nañ ko arrêté wala ñu wàññi ko ci lu jëm ci ay produits pétro ci ay euh, lu jëm ci énergie ñu ne la courant bi wàññi leen subvention bi ngeen di subvention ne courant bi wàññi leen subvention bi ngeen di subventionné yeneen ak yeneen parce que day fekk la ngay subventionné yow xaalis dèjà yow yaa ngi lépp jël beneen xaalis bu nekk ci biir gaf ak réew mi nga yokk ci loo xamee ni tey yaa ngi koy dem di ko jaayi sénégalais yi waaye faw nga yokk ci dara ci yow loo ngi koy jàppale ba sénégalais bi bu koy jënd day xaw a euh, du du cher trop ci moom ñu ne la mais pourquoi ne pas appliquer la vérité des prix parce que moom mooy lay permettre yow sénégalais bi ci boppam génn ci gafam ku ci nekk dugal loo xamee ni dootoo soxla yenn leb yu bëri yi nga koy leb mais tout ça économiste yi dañ koy wax mais ñun ñii sénégalais yi xamul lenn ci économie xamul lu ñu bëgg a xam ndegam ñun loolu du am jeexital ci lañuy jënd chaque jour wala la ñuy lekk chaque jour leb boobu ngeen leb est-ce que day dugg ñun suñuy poche directement sénégalais bi loolu la bëgg xam et dans ce sens là il faut nécessairement qu'il y ait une communication mais boo xamee ni doo ko yóbbu ci ay eurobond ñu naa la luy eurobond sama mbokkum baykat bi nekk fële euh, dana naan eurobond mu ne luy eurobond xamul lu mu xam mhm. gerte gi lii lay jar mhm. diwlin bi mën nañ ci amee nangam su ma jaayee sama ngooñ lii laa ci mën a am yow mii nekk ministère de des finances xaw ma économique yooyu wàcceel sa sa sa sa langage ba mën a yemoo ak sénégalais lambda bi mën ko expliquer économistes yi ñu ngi fi ñu ngi wax bon euh, débat boobu moom seen biir la. am nañu jàpp ni peut-être ci choix boobu war nañ ci communiquer muy JP bi d'ailleurs euh, Birahim Seck wax na ko ci un état boo xam ne jub-jubal euh, jubbanti la wax est-ce que waruñu également communiquer pourquoi ñu porter seen choix foofu.